bi la xeerew lul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat serigne touba ak ñoñam ñaati tawfiq ya, illa billah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolo mi di len ziar di ñaanal Cheikh Mountakha Basir borom bi kàttanal ko téwéral ko di ñaanal Cheikh abdul Khadir ak mbooleem way dawle yi suñu taxawaay fi nak boo gisee dañu ñew ci dëkk bi nga xamne ben la ci dëkk yi ñuy wax njare yi ñu gën koo miin ci dëkk Njare Ngeer dëkk boo xam ne maam Sayer Binta moom moo ko sanc di dëkk boo xam ne démb ak barki dem ci jàng alxuraan ak jàngale ko ci lañ leen xamoon foofu nag fi ñu dajee tey ngir dundal ak bokk muy loo xam ne yàlla moo na ko sant mu nekk loo xam ne ay ndaw ñoom ñoo koy taxawal yoo xam ne wax dëgg yàlla seen pësteef seen jom ak seen bëggu bokk foo ko takk rek weesu na ko at mu jot ñu di ko amal daan ko amale ca Touba Adi yi ñuko indi fi ngir di ko suñu mam yi ak di leen ñaanal nga xamne ni ñuy ni ngeen ñu gisee ci waaj wi ñi defar ay bernde non ngeen ñu gisee it eh, ci alcorane ji ñu ci jang ay limi kamil yu dul jeex di ko def ci groupe whatsapp bi ba ñëwee fi dañ koy jang dem siyaar ci barabe di siyaar mbolé mag ñi fi dekk muy dekk bo barkel nga xamne ne am mag ñoo xam ne yéen ñoo fi nekk téye dekk bi ba legi dekk bi yalla def na mi ngi fi di dundu gandu ku melne mam Touba bu ñu ko ak ku melne Baye Alsane ñoom ñëpp ñoo fi nekk ba tey ji taalu jàng yi bu timis jotee dafay tàkk kon mu nekk dëkk bu barkeel boo xam ne euh, njaboot gi ñu ngi bàyyi koo ci gox yu sori di fi ñëw ngir dundal seen dëkki maam kon na ci na nit ki daal war nay fonk ci taanam war nay xam dëkkam waaye dundal ak bokk gi ko yàlla sant war na koy def loolu nag ñu ànd ceeg ay jàmbaar yoo xam ne wax dëgg yàlla fu ndaje mi egsi bis bañ ko commencé ba léegi rawatina ndaw ñi ñoom ñoo ko fa ku mel ne sëñ Touba Ndiaye mi nga xam moo féetee sama wetu ndeyjoor ngeen gis ko xam ko bu baax ci mu ciy kenn di jàmbaar yoo xam ne guddeem ak bëccëm yëngu ak dalam waxuñu ko ngir taxawaaye mbooloo mi mën nañ koo seede sëñ Abdourahmane mii nga xam ne moom moo nekk sama wet moom it depuis bañ commencé ba léegi amuñ mosu ñoo yokkal mosu ñoo wax taay na mosu ñoo na damaa jëlee li ñu teg waaye li ñuy jaayante képp mooy lam bu ñu la ko waxoon nga ne nga ne déedéet kenn ku ci ñoom ñii ñi ngi ay saaku ceeb ñii loolam la fi sedd ñii ndox kenn ku ne fa sa doole tool yaa koy jaayante te depuis boobu ba léegi ba ñu am lu kawe lu kawe njort ne ay xale yoo xam ne man mii su fekkee dañ naan bokk naa ci ña ca mag kon foofu amul mag kon mooy yàlla may nañu ak wayef ak dal ba boo ñëwee fii doo xàmmee ku mag doo xàmmee ku ndaw ndax tey mbooloo mi li bari bari buñ la waxoon ki ko jiite ay rakkaat rakkaat la ci ci ci mbooloo mi daje fi rakk rakkaat moo ko jiite at yi waaye day mel ne rek ñu bokk ak bëgg bokk fu ñu jëm day mel ne jiital leen day yomb kon daal dañuy ñaan yàlla dotti ci dëkk bi xéwal defal ko mboolem julit te gëm nan ne lii moom lu yàlla nangu la ndax lu muy laaj bu ëllëgee la muy ak bokk nga xam ne sàmm ko dafa war ku nekk nga xam ne daal bis la bu màgg bu rëy boo xam ne daal ñi ngi ci sant sunu borom bu baax a baax a baax ndax bis bi tax na mboolem xale yu bëree bëri lii moo tax ño xam dëkk bi bu doonoon lii duñ fi ñëw xamuñu mu féete amuñu jot guñ leen fi indi waaye nag ñu taxaw taxaw mu jot mbooloo mu bëree bëri ñëw tase ñëw ci dëkk bi xam naa kon dañuy taxaw foofu jox ku mel ne ñu seen taxawaay yoo xam ne jox sëñ Abdourahmane ndax ay jàmbaar ñoo xam ne liggéey bi bi mu commencé ba léegi ñoo ko fondé ñoo ci nekk ba léegi mos ñoo baax buñ leen digalee ñu def te daal buñ leen teree nu bàyyi waaye loolu lépp lu ñu yàlla suturaale mooy woyef gi daal woyef gi daal lañ ma gën a neex ak nangu ku ci jéem a xëcc léegi sëñ Bass mii nga ne moo taxaw sa wet moom laa wax léegi nga xam ne ay rak-rakaat la ci mbooloo mi te moom moo jiite mbir mi dana na ñoo xam ne mat nañ ko ñun amuñu dara lu ñuy xëccoo kon day gis ne moom ñun ku ko gën a féet ndaw sax bu ñëwoon ne day jiite day moom xam ne ne kenn fa kasalu ko su diglee jëf ba tere ñu bàyyi li mu bi tey moo suñ kilifa kon loolu nag jafe nga gis ko ci yeneen famille yu bëree bëree bëri kon ñoo ngi ñaanal ñëpp jàpp ne danañu dimbali képp kuy seraan vidéo bi ca bokk ci famille bi wala nga nekk ci diaspora nga mën a jàpp ci loolu ndax boo xoolee nag defe ko biir Touba maanaam fii boo fi doon financé maanaam par exemple 500000 maanaam boo doon financé Touba 500000 fii 1 million nga fi financé ndax daaw rek budget bi àggoon na 1 million daaw te le ah million 20 1 million àggoon na fa te boo xoolee maanaam dañ maanaam dañ mag ñi bokkuñ maanaam mag ñi dañ leen a wàccee xale yi ñoom ñoo ko yor ku nekk sa kër ngay añe fa ngay yenn bu taaksaane nga ñëw ñu waxtaan kon baa daanaka baas ak ay berne yu ndaw ndawaan kon fii fi doole kon ñoo taalal loxo ndax sëñ Abdourahmane mii nga gis sama wax bëggul ko wax na waaye nit bu defee wax man maa ko mag mu soññ ko mel na man ak soññ ñi nga xam ne ñoom ñu ko ëppale te dogu ko ci Cheikh Modou Moustapha ci daraja Serigne Dara bu déwénee dana man man fukkam amba ak ña dar may xool ko ca ay dalu sas te rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaara mbooloo mi fi teew ci turu waa Ndiéré Ball Nguer jiital si suñ jëwrin seen Alaaji Njaay jël sunu nuyoo teg ci loxaam mu jox ko mbooleem ñi teew ci ndaje mi ñëpp di sant mbooloo mi fi teew démb ndax organisation bi ñoom démb la ñëw démb ci suba lañ bàyyi koo Touba ñëw fii ci euh, Ball incha allahu taala ñu ngi fi ba suba ak jàmm ànd koog mbooloo mi ci liggéey bi ak lépp loo xam ne si ne jox nañu ko ndigal ñu sant bu baax Serigne moor mi nga xam ne moo jëloon kàddu gi xam ne wax mënewuñ ko waaye day ndigal te ndigal jëfe ko daa gën ko koo bañ a jëfe euh, ñu ngi sant jigéen ñi nga xam ne si ne ànd nañoo ñoom ci waañ wi euh, soxna Diar Ndiaye jiite leen ak soxna Maguette Diop ñu ngi leen di sant bu baax di sant Darou Ndiaye TV Serigne Moustapha Gueye ak Serigne Bara Ndiaye nga xamne joge nan nañ Touba bayiko ko Touba ñew ba Njara Ball di nangami kilomètre ak ci fi ànd ak mbolo mi parce que ne tatane bepp kaddu go xamni ci ne bayiko na ci mbolo yi pour ñi nga xam si ne teew ak ñi nga xam si ne teew fi ñu mëna xam li xew ci bis bi ñi ngi leen di sant bu baax di ñaan suñu borom euh, sen radio bi wala sen imi seen euh, kii bi TV yok bu baax a baax a baax ñu ngi sant mi ñep di jox president Serigne Alaaji wala president serigne Bassirou Ndiaye mu jël kàddu bi inshallah lu jitu cheikh Bamba feñ l'islam lañuy noté noote ñoo asan daarul pal nampal ko meen. mbok yi ñi ngi nuyu di siyaare ñep di sante kep koo xamne ne nga fi rek ñun comme niko serigne Mor wax rek daanaka ñoom bu ñu waxee rek dañuy waxaale ni sante moy mooy famille Ndiéré Ball Nguer day doon famille boo xam ne bu man mako jité moy kon famille ba yomb naa jiite ndax man mo jital dara dan ma jital rek nono kon bu nee famille bala ngeer rek kon famille bobu yomb naa jiite ndax nek ak say mag ñi nga àndal ñoo xamé magé nan la daanaka lu kess nek mën na magé magee fukkat ak nangam wala fukkat ak juroom nga jité len kon loolu du jiite daanaka mam famille ba mo neex jité ta ñom ñoo neex andal ginnaaw loolu nak liggéey baa ni di soññi ñepp ci liggéey bi di wax ne maanaam ak mbokk moom ak jaamu yàlla la lépp loo xam ne waaye def na ko si rek bu bu bu mu ko xeeb ndax boo xoolee am na ñoo xam ne gën nañoo di sant ñu ngi ñëw tey bokk lay yëre toog fawandoo kafre boo gisee nit ñi ko si nekk maa ngi gis di foto wu di kaf ak ree te loolu mooy ak mbokk te loolu ñuy def lépp ak jaamu yàlla la mooy dox nan ak mbokk di sant ñëpp mbooloo mi boo xoolee ni ni ni taxawee bis yi métti na waaye la naan mbokk boo xam ne ànd nan rek luñ bëgg mën nañ koo def ndax bu ñuy saa suñu tàmbali dañuy tiit si bis ndax buñ demee liñ bëgg danañ ko man wala duñ ko man waaye saa su bis bi ñëwee rek lan bëggoon dañ koy man ba man lu ko raw kon loolu ak sant yàlla la kon lépp loo xam ne waaye mi ngi koy def ci wàllu mbokk na ci gën a bu baax a baax ndax mbokk lu mu mënul rek lu mu mënta taqale wala lu mu mënta xaajale amut lépp loo xam ne maam tëlee na rek mbokk moo ko mën a boole kon nañu gën a góorgóorluwaat si baax si mbokk yi ginnaaw loolu dañuy dañuy rendre hommage boo xam ne danañ ko jàllalewaat bu bu bu bu ñu def conférence bi sa sa baas ba muy photo yi nga xam ne gis nga nit ñi sol ko muy Serigne Cheikhouna Ndiaye di koo xam ne daaw ci heure bi liggéey bii sëñ Alaaji jiite moom moo ko jiite woon tey yàlla jële ko fi ñu koy fàttaliku di ko di ko jooy jooy yoo xam ne manqué na fi tey xam na ne manqué na fi ndax nit la koo xam ne bu daa liggéey daaw daawu tirise maam maanaam maanaam dadaa dee si coono daa liggéey ba nga xam ne ma ba nga yaakaar ne kii moom bu jógee fi mën naa faatu kon kii ku jara sant la di ko sant ndax liggéey bi mu liggéeyoon ak góorgóorlu gi mu doon góorgóorlu si famille bi tax na ba léegi ñun fàttiwuñ ko kon lu waay di def si lu baax nag gën a yokk surtout say mbok ndax seexonaam bi kenn du ko fàttee mbokkam kenn du ko fàtte see àndandoom kenn du ko fàtte ñi ko xamoon kon ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana lepp lo xamne ne nako na rek yalla suñu borom yërëm ko te lepp lo xamne sam sàmm na ko fi ak njabotam yalla sàmm len ar len bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di santan mbooloo mi bax rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñ mbok jullit mbokk ñu ngi di nuyu baax leen siyaara tey ñu ñëwoon fay si suñu di bal fekk suñu morom yi nawle ñom di yag def bis bi di ko taxaw du ko def seen dëkk maam ñun ñu ngi jógee Njara Xorndom teewal fi waa Njara Xorndom yëpp ci xalifa Baye Abdou Say ñu xam si ne mooy jiite Njara Xorndom ak ay rakam ñëpp ànd ak Baye Mourou Diallo ak sëñ Mamadou Ndiaye mi teewal fi waa Njara Xorndom yëpp ndax Njara Xorndom ak ak Njara Ball wax dëgg yàlla dañoo lëkkaloo nekk benn te yàgg noonu jëflante ci anam yu rafet. sa suna ñi ngi demlante ci ay xew ñi ngi ñi ngi demlante ci ay famille loola waral sa buñ xew ñom tam ñu bayyi suñu yitte yëpp ñu ñew teew ci and ak ñun ci bis seen bis bi xam nañ ñëpp wax dëgg yalla ñoo li ñu bolé moy benn maam rek mo moonu meñ moom ñu njëre yëpp moom meñ njëre wa waa njëre seere waa njëre kër euh, njëre kër njëre kër ma pend ak njëre xorndom ak njëre bayal ak njëre bal bal balangeer ñëpp teew nañ fi teewaay bi rafet wax dëgg yalla lii mooy wane ne kon famille kon benn lan ndax li ñu boole mooy mam Demba Ndiare moo nu meññ moom meññ Ndiare yi askanu Ndiare yëpp juróom-ñaari Ndiare yi loola waral kenn ku nekk am ab famille mooy mooy bu xam ab dayër la chaque chaque chaque chaque fin wala chaque quinze jours nga koy nga koy réunion loolu loolu moo waral lii nii jataay bi tey kon wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal waa Ndiare Bal Bal Bal tey ci seen taxawaay bu rafet bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu baax. di len ziyaare di santal yalla bu baax ba ñu suñu borom subhanahu wa taala defee ñu fekk wal bis bi nga xamné njabot gi nga xamné moy njabotuk mam maam Demba Ndiaye ñoo ngi koy def fi ci dëkk bi moy Touré famille ballu Nguer ñong leen di nuyu bu baax di nuyu mbolem famille yi fi teew ñëpp rek comme ni ko mam mor waxee léegi nii ci kàddoom mi mu jël mu nek kàddu rafet yo xamné ne ba sa yamo rek doyna na sëkk waaye kam comme ni ko waxee ci famille rek ñun moom ñoo fi teew teewal fi waa kër ma penda gépp rek ndax kenn ku nekk xam na ne famille Balla Nguer ak famille kër ma penda benn na nax ñoo bokk benn maam kon nag ñoom ñaar bu ñu xewlee yoon la nag kër ma penda lu mu di jàpp mu bàyyi ko ñëw teewee si bi loolu nag taxawaay bu rafet la ndax gone yi ni ma koy faral di waxee mooy seen maam yi da leen wàccu loon puso ba te puso bi leen wàccee fexe nañ ba réerul ndax soo gisee ne famille lépp ben la ndax toute famille Balla Nguer ak toute famille la ak Njara Sayar ak Njara xolam yëpp ben la ndax képp ku ci gis samaram da ngay mel ne yéen a bokk nula, ben benn benn maam te ben mam ben la da ngay mel ne yéen a bokk benn dëkk te dekk yi danaka bo xoolee ngir bëgg mu yaatu motax mam yi sanc ko waye nak bari ñoo xamne fi seen papa jaar na fi wott fi alcorane ben man di wax ak yow kon nak li dafa nek jotaay bu am solo bo xamne ni heure buñ ko wote mboolem famille fu mu mën di nekk ak lu mu mën di jàpp ak lu mu xat-xat dañ koy bàyyi ñëw njëre njëre bayal yebal fi suñu bay xarit mi mu ñëw ànd ak man ñu ànd ak waa njëre seer ñëpp rek ñu taxaw taxawaay yu am solo yoo xam ne nii ci bis bi comme ni ko suñu Modou Bara waxee ndax dañoo wane ne kat ne gam suñu maam ñoo la ànd nekk lépp nekk benn te bokk benn maam kon nag yoon la nag bu benn famille xewle lu waaye mën di jàpp nga bàyyi ñëw kon nag moo tax ñu refetlu taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def ginnaaw loolu nag li ñu si soññewaat mooy kenn ku ne gis na ne famille ay bis yoo xam ne ñoo ngi koy faral def mooy di tuddalante seen morom tey exemple kenn bu defee famille na jëm famille tudde ko ball def na ko yaakaar naa yoon yéen tudde koy famille bëree bëri loolu nag noonu la famille yëpp di doxee mooy gën a boole gu njaboot gi ñu boole nekk ñu gën a nekk benn ba képp koo xam ne gis nga sa morom nga xam ne kii na bokk benn maam loolu rek moo jubluwaayu ndaje yi mooy tax heure bu ñu gisee ñu si soññee di si soññi tout tànk yi ak mag ñi loolu rek la mooy bëgg gone yi xamante xam seen i baay xam seen maam xam seen nijaay rek mo seen jublaay bi xamna naa yaakaar naa si Mbour Ba bu fekkee amul lu na li si maam moon waxoon doy na sëkk ngi sant bu baax baax di jéggu baax assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum rahmatullah ñu so suñu nuyo ci jëwriñ baax yi baye rek ku ci melne Cheikh ak Serigne Mame Mor ci kaddu yi am solo yi nga xamne man nga wax ne suñu kaddu yi sax suñu kaddu yi na ci biir waye ne da fekk ne tagge bo gis mën ta am jappal diw mo wara suñu teway di am bekti bu baax ci li ñu tew di suñu dëkk ñukay koy wax Ndiara Balanguer mu doon dëkk bu xamne ne dëkkub cosaan la loolu nak dafa bayiko ci ki nga xamne mo ñu meñ ñun ñepp yu taxaw fi ni mam Demba ba ci sayar maram mi nga xamne bokku ni ci njabootu njaboot gi nga xamne mo moo fi di dëkk bi di Balanguer kon loolu ab soññee lay donat ci ñun ndaw ñi ngir japp gi nga xamne war nañ ko jappal bu baaxa baaxa baax dekk bi ak yeneen dekk yu melna mom di dekk yo xamne damay wax ne ñun ndaw ñi ñun mom suñu suñu wajur wacc nañ waye ñun ñi nga xamne ñun lañuy baye posé bi nañ fexé ba gor gor bu baaxa baaxa baax ba du sabab bi tax nak bi nga xamne dana may liñ bëgg ñu mën ko am muy daje yi nga xam ne des koy faral di woote ci dëkk ba muy Touba muy daje yu baree bari yu xam ne dañ koy woote ndax boo xoolee bala ngeer gi nga xam ne tey jii ñoo def seenum daje fii Touba gee ñu nekk nga xam ne fa la mbooloom lu ci ëpp nekk euh, seeg ñaar fukki fan juróom wala ñaar fukki fan ak euh, wala weer danañ woote kenn ci membre yi nga xam ne ñoo bokk ci njaboot gi dajee fa waxtaan te loola muy doon lu am solo lu xam ne damay wax ne loola bu amul woon kon ñu ndaw ñi duñ xamante ndax seigne khadim mi di gëna tax ma yok ko gëna xam ba ci seigne touba mi taxone fi ba ci yow mi ndaje yu melni motax kon loolu lu am solo la kon nañu wara def muy gën ci gor gor bu baax kep ko xam da nga bok ci njabootu Balla wala nga bok ci njabootu sayen Maram choy te bay Saliou ngay ne sa jëwrin seigne Modou May nekk sun president dañu wara gor gor bu baax ngir xam dañ laje yi dañ ci dañ ci wara gor gor bu baax te xam liñ bëgg moñu ko moñu ko ramay ndax sun dëkk bi sun dëkk yi nga xam mom la suñu wayu sanci waruñu ko bàyyi noonu muy gent kon lañu war a ñoo laxasaayu war bu baax a baax a baax a baax a baax gën a góorgóorlu ba dëkk bi ñu xam ne ni nga xamee noonu la ñu ba dëkk bi Touba am xalaatu Touba sa kanam ñun xalaat bi war a am mooy njëriñ ca kanam dañ ko war a am ndax ndax suñ suuf si suñu maam duñ ko duñ ñu ko goral fàggul ñu ko ñu koy bàyyi nii mu doon garab yi kese kese kese li ñu war a def mooy ku ci nekk nga am gëm-gëmu ne Touba dëkk la waaye nag dëkk bii dëkk cosaan dañoo dafa war doon dafa war a doon makaan moo xam ne dañ ko war a defar ku ci nekk li li nga xam ne mooy sa cëru waajur nga jël ko defar ko ba mu ba même ba ba méngoog jamono nga xam ne lu mënta ñàkk comme yi nga xam ne mooy ndaje yi am fii ku nekk boo ñëwee mën a dugg sa kër da ci am solo lool ngir ñu war ko def ko loolu ñu war ko bàyyi xel bu baax a baax a baax gën a laxasaayuwaat bu baax ñu ndaw ñi gën a waat gën a ànd gën a ànd bu baax ndax. seen xaarim ñoom ak seen tuba bu nekk ci dëkk bi di woote ñañi woo ëppaliwul nañ ca dañ dañ leen bëgg lu baax kep moo tax ñu leen woo waaye nag nan xam ne ñoom mun ñoom buñ toogoon seen roq kii toog ci roqam kon dara du sotti kon loo gis loo gis mu tax lu nekk daa am ñu bàyyi ñu bàyyi dara def ñoo def dara kon ñun ñëpp dañoo war a gëm-gëmu ne ñun ñëpp lépp luñ jàppoon dañ ko war a bàyyi ngir takk àndandoo lépp luñ songandoo ñu mën koo daanandoo kon loolu mooy li nga xam ne moom laay soñ ñi nga xam ne mooy euh, sama sama mbokk sama morom ñi nga xam ne ñoom laa maasil jamono benen bi ci des muy kaddu cant yu geureum yo xamne dama koy jëmul ci mbooleem kilifa yi nga xamne ñoy ñooy ndax ñom kat wa deug fi yar annan leen waro lepp def nan ko ndax ku ci nekk ci ñoom yaa and ak say doomi bay ba cër bi nga xamne ñom nga waro say doomi bay yaa ngi koy def ndax ben bu dee lo mën di yëkëti ak lu mën di doon bala nga ci dugg bala nga ci soobu da nga xol ka nga xamne mo la fété ci wàllum kilifteef mu fété la fa ndax dañu wax ne képp ko xamne sa bay sa sa taw bay mi ngi dund sant def dara sa sa baay bu dund lu ma santoko def ta loolu wax ju wér la kon loolu nañ gën a góorgóor gën a gën a góorgóor baax gën a topp suñu ginnaaw mag gën a laxasaayu ba lépp luñ son lépp luñ luñ song rek ñu mën ko daan kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant di gërëm di wax ne suñu fii ñu ngi teewaay fii ci teewaayu njara seer ci ndigalu Baye Saliou Ngaye ne mooy kilifa gi ak Serigne Mor mi nga xam ne mooy président bi kon ñu sant ñëpp di gërëm di sant waa Balla Nguer bu baax a baax sant nañ leen bu baax gërëm leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu murit di ngal xew raw lul maa ngi ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati murit bi ngal la xerewlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati